bokk auditeurs yi ñu ngi leen di nuyu ci Sud FM seen rajo 98 point 5 ñëw ak yéen ci rétro sport rétro tey bi nag dina wute ak yeneen rétrosport sport yi ñu daan def ndax li ko waral mooy épidémie coronavirus bi nga xam ni am na ci àddina bi ba daanu ci Sénégal te it ñi nga xam ni ñoo nekk ci santé bi di ci liggéey liggéey bu mag ak sénégalais yi nga xam ne tamit dañu mobiliser ku ci nekk def sa participation pour ñu xeex ak moom.

ministre de la santé ak nga xam ni ñoom la àndal di liggéey ci liggéey bu mag boobu nga xam ni dañu taxaw ci feebar bi pour jëlee ko fi Abdoulaye Diouf Sarr ak ñi mu àndal kon ñu leen di sant di leen gërëm médecin yeeg infirmier yeeg agent yi nekk ci santé bi yëpp ñu leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla feebar bi nga xam ne ñu ngi koy faj yàlla bu leen ci dara dal ndax mobilisation bi ñëpp yëg nañ ko. ñu am ci mbégte lool am ci fierté encore ci taxaw bi ni mu demee di ko ñaanal moom mi nga xam ni moo jiite ministère bi ak nga xam ni tamit moo jiite réew mi ñu am ci ndam ndax seen ndam mooy suñu ndam ñu ñëpp sunu invité nag El Hadj Malick Modou Mbaye la di arbitre de lutte incha allah léegi mu ñëw mu ngi ci yoon wi ñu waxtaan ak moom ci grève maanaam arbitre ndax defe naa ni feebar bi daanu ci réew mi rek moo tax ku ci nekk loo jàppoon war nga ko bàyyi. Mhm. ñu déggoo juboo ndax bu ñu jógee ci lii saison bi mën a continuer ci jàmm ak salaam. muy lu am solo waaw euh, di fàttali rek ne nag euh, affaire bi dafa laal sax yow ñu ngi ci wàllu tàggat yaram. Mhm. xam nga toutes les activités sportives sont son arrêtées. suspendues euh, arrêté nañ ko depuis le 14 mars dernier lañ ko arrêté wax ne dootul dara am ci yëngu-yëngu parce que dañu tere rassemblement bi. sportif yi sportif yi tamit am ñoo xam ne ngi ñu ngi joué seen ay partition bien sûr ku ci mel ni fédération sénégalaise de football mhm. yëkkati nañ koppar jox ko ministre bi mhm. euh, waa ligue ligue de tamit euh, euh, joxe nañ seen seen koppar mhm. basket bi tamit def nañ ko handball bi Baba Tandian def na ko ñu bëree bëri dugal nañ seen loxo même association nationale de la presse sportive bi Abdoulaye Thiam sax ñoom tam bokk nañ ci indi seen contribution ci li nga xam moo jëm ci wàllu faire parce que feebar bi dafa nekk loo xam ne dañuy euh, euh, dafa laaj ay jumtuwaay donc ku ci nekk yaa ngi jouer sa partition ngir rek feebar feebar bi mm, am ni arrêté yaa ngi wax léegi tamit lu am solo moo a teg tamit euh, pause bi ñu wax ci sa tax lu profité wàll ci régler ci yu bëree bëri waxtaan ci lu bëree bare bëri xam nga da ngay faral di wax ne sport lépp luñ ko war a wax luñ ko war a waxtaanee ba mu war si wàllu tàgg dem loo xam ne polo ak ré même su fekkee sax maintenant y a d'énormes enjeux yoo xam ne am na ci donc Pape période bi war a nekk période bu am solo boo xam ne war nañ ci waxtaan maa ngi fàttali sax ne léegi ne kii di Sadio Mané tamit joxe na ci ay ay ndimbal mhm. Ismaïla Sarr bu bu bu bu bu Watford tamit jox na waa Ndar ay jumtuwaay ci yëpp ak tamit euh, góor gu Dieng góor góor gi si Dieng basket bi mhm. handball bi ñëpp lépp joxe nañ mais dafa am beneen euh, euh, taxawaay boo xam ne bu tàggat yaram war nañ ko ci laaj maanaam période bi comment kon lañ ko war a gérer mm-hmm. keroog sama waxtaan benn préparateur physique mu ne ma dañu war a def un mm-hmm. a toog rek na yàcc na yasar toog mais nga mm-hmm. di di def ay xam ne doo def entraînement collectif entraînement individuel ngay def am na sax ñoo xam ne dañoo proposé proposé programme spécifique bu jox ko joueurs yi wax ne naka la ñuy def fan lañ ci naka lañ ci fuñ ci toll naka lañ ci war a def pour maintenir la forme waaye loolu yëpp dafa fekk nag buñ koy def ñu fekk def ko ci ak wér-gu-yaram ak dal loolu daal euh, lañ ñaane donc daal sportif yi ñëpp jog nañ mobiliser wu ngir rek fexe ba li nga xam moom mooy feebar bi daal di fi wàññeeku donc par tamit occasion tamit pour euh, am yoo xam ko ku ci mm-hmm. mel ni euh, génération fu tëj nañ ko maa ngi joko Talla parce que c'est pour des raisons de sécurité libérer personnel bi Dakar Sacré-Cœur tëj na jàmbaar say toog na fi keroog nee na képp ko xam ne Euh, bokk na fa doo fa dugg en ku dugg ñu defal thermoflash bi xool ndax am nga xombal amuloo ko donc dafa nekk loo xam ne fi mu toll nii urgence nationale la maanaam dafa soxal ñëpp waaye nag dañ ciy war a sataxlu daal ci situation bi nga xam ne am na nii mun ci waxtaan ci ay poñ yu bare bare bare bari bëri sport dafa yëngatu dafa laaj yu bëri yu waxtaan rawatina ci li nga xam moom moo nekk ci wàllu football bi maa ngi fàttali seen Aliou Cissé ñu tànnoon entraîneur yi ñu tànnoon ngir ñu euh, mhm. euh, gis nga tamit message nga xam ne ñoom Idrissa Gana Gueye ñu ngi koy def yëpp lancé ay message parce que li dafa nekk kat Pape mbir moo xam ne dafa soxal ñëpp dafa doy waar régional ligue wante comme li nga wax sànq rek période de repli saa amee nit ñi dañuy xalaat mhm. ndax bu nit ñi toogee seen kër il faut ñu waxtaan ak seen jegenaay mhm. te li nga xam ni mooy suñu waxtaanu tey ak ki ñu invité. Mhm. muy Modou Mbaye mbokk mhm. ci arbitre yi. Mhm. te ñu am réeroo ak CNG bi. wante ku dégg ministre bi li mu wax xam ni bu situation bi passé rek dinañ toog waxtaan. ndax xam tamit li naan réeroo am na wante ñàkk waxtaan na ko indi te euh, déggoo juboo moo gën réeroo. ak ñàkkante. dëgg la arbitre yi dem nañ grève. te li ko indi mooy sanction bi nga xam ni CNG bi daf ko teg seen kaw. Mhm. surtout ki nga xam ni moo ko jiite muy Sitor Ndour di président mhm. commission des arbitres. Mhm. ak ku ci mel ni Babacar Diop. ak Malick Ngom ak Malick Ngom. xam nga Malick moo sifflé woon diggante Modou Lo ak Eumeu Sène. waaw keroog moom moo sauvé moo ko sauvé woon waaw. donc ñuy arbitre yoo xam ni yàgg nañu collaborer ak CNG bi. mais comme li ma la wax rek comme que réeróo rek du ñàkk waxtaan am te bu waxtaan amee jubóo dina am. ndax sanction toujours nit dina ko def par la faute. mais bu demee bi ci biir na ci teg yërmande. Mhm. ndax c'est pas la première fois. ci mhm. wàllu làmb ji mu am sanction. Mhm. yaa ngi fàttaliku Bombardier sanctionné nañ ko fi keroog bi muy bëri ak Yékini. ak Tyson arbitre bi sifflé. Yékini woon ko ginnaaw di dem mu dóor ko. Tyson tamit bëreem ak Bombardier. te mu am coow te mu yaakaar ni moo daan. ñëw ci arbitre bi pour mu yëkkati loxoom arbitre bi ni ko da ngeen di bëriwaat mu génn làmb ja. trois ans lañ ko suspendre mais gis nga nu mu mujjee. dañ ko mujj wàññi. mais Pape loolu dafa amoon ci dox ay tànku jàmm dafa amoon ci jógoon dox dëgg la dëgg la ci ngeen bokkoon ñoom Pape Mansour Mbaye ñoom du ñàkk ñu koy mais xam nga dafa am ñoo xam ne bu ñu doxee mu feeñ ak fés am ñoo xam ne bu ñu doxee du feeñ du fés mm-hmm. du ñàkk mm-hmm. bu dee benn sax am na ko ci dox mm-hmm. ñàkkul ku jigee waa CNG bi waxtaan ak ñoom ni leen wàññi leen sanction bi wala baal leen du ñàkk ki la koy wax sax mun na am du sa xarit doo ko xam ne da ngeen di daje fenn mu wax la ko bañ ci jógee tamit gis nga Boy Niang ak Zos. Mhm. incident ba ñu amoon. RTS RTS waaw. ak suspension ba na mu demee woon. Mhm. mais gis nga tamit na mu mujje mhm. gis nga tamit Lac de Guiers numéro deux bi ñu ko fi suspendre na mu mujje donc loolu yàgg na am. suspension bi rek c' la hauteur de la frappe. kon jàpp nga ne bii yow. noo bien sûr mënuñ waxtaanee ba mu jeex non fu lay mujjee. ndax ndax précédent yee tax. ndax dafa am fot yoo xam ni boo ko defee ci ki nga xam ni mooy àtte daf koy teg flagrant délit. mooy kaawu Tyson mhm. mooy kaawu Boy Niang mhm. mooy kaawu Bombardier mhm. mais gis nga ne mu mujje ndax CNG bi yàgg na sanctionné à la hauteur de la faute ci moom ni mu ko gisee par rapport au réglement mais ay nit lañu rek am nañu ay sentiment mais mais am nañu ay mbokk am nañu ay relation am na tamit ñoo xam ne bu ñu leen ñaanee ñu nangu te it ku leen xam ku xam Alioune Sarr ak ñi muy àndal yàgg nañu jël décision pour wane exemple mais bu ñu ci jógee ñoom seeni sentiment bopp dañuy yaakaar ni kat comme que ñun dañoo teg fii pour ñu liggéeyal réew mi bu ñu demee ba jël sanction ba réew mi ni sanction bi kat war nañ ko seetaat dañ koy seetaat. mais mais bii est-ce que xam nga bii dafa am faute mais bii ñoom arbitre jàpp nañu defuñu faute parce que ils étaient dans leur droit. moom laa lay expliquer dama ne pour arbitre yi. waaw defuñu faute mais pour CNG bi dañ def faute. Mhm. loolu moo indi problème xam nga Pape kuy laaj wàllu assurance laaj ñu yokkal. dëgg jaadu na ak yenn conditions xam ne lu toll ni lu mel ni sax arbitre de lutte. Mhm. arbitre de lutte moo gën a doy waar sax arbitre yeneen sport yi. Mhm. ndax da ngay joxe verdict léegi da dajëg nit ci mbedd mi moom di la problème waaw mu ngi noonu mhm. te it ñoom seen wàllu bopp yàgg nañu wax ni yàgg nañu revendiquer loolu c'est pas la première fois depuis plusieurs années ñi ngi def revendication bi mais duñ leen tontu ou bien saa ñu demee réunion bureau CNG ñu ne leen dinañ ko réglé wala dinañ ko seet. Mhm. bi ñu demee ba nga xam ni toog nañ lu yàgg lu ñu doon séntu amuñu ko ci lu ñu dem grève. Mhm. mais comme li ma la wax rek saa yu réeroo amee ku ci nekk da ngay def nekk ci dëgg. Mhm. CNG bi dafa defe ni moo nekk ci dëgg. arbitre yi tamit dañ defe ni ñoo nekk ci dëgg. waaye am nañ kilifa. muy ministre bi. mais mais mais Pape ministre bi dafa délégué jox ko CNG. ministre bi du ci dugg mais. bu demee ba affaire bi sës. da ciy dugg. bu ñu demee ba retrouvailles war a am. ak waxtaan war a am mun na ci bokk. pour le moment du ci bokk parce que dafa am cër boo xam ni jox na ko CNG. Mhm. ñu koy diriger am na yoo xam ni bu amee ñoom ñoo koy réglé de manière interne. Mhm. bu ñu demee nag ba affaire yi ëpp loxo. Mhm. il est obligé d' intervenir. d' intervenir ndax tamit c' est ministre de tutelle. loolu moo tax ma yaakaar ni. ak nu mu mënti demee rek tôt ou tard. waaw. te bu yàlla bu ñu egg foofu sax mhm. yàlla yàlla nañ déggoo ci yow daal yaakaar nga ne solution war na mën a am non day am day am ndax loo gis am na solution ndax affaire bi tamit duñ ko bàyyi noonu éternellement ah, mais mais mais man xamul ma ci xaw a jaaxal moom mooy dafa am dafa mel dafa mhm. ak li nga xam ne moom moo jëm ci wàll bi nga xam moom moo nekk nag euh, logique bi nga xam ci lañ nekk ñoom mhm. ku ci nekk yaa ngi taxaw sa camp na yaa ngi ci ci ci logique bi boobu c'est le début c'est ndax toujours bu coow amee ca départ ba na muy demee ak ca fin bi du mujj loolu moo tax ma yaakaar ni rek jusqu'à présent avant la fin de la saison mhm. dinañ trouver solution kon suñu mbokk auditeurs yi suñu invité ñëw na muy Modou Mbaye muy Modou Mbaye di arbitre de lutte mhm. bokk ci bokk ci commission commission centrale des arbitres centrale des arbitres ci tondur jiite ko bien que moom sanctionné wuñ ko mhm. wante ñoom seen bopp dañ ne bu ñu sanctionné président commission bi si toor ñoom ñëpp la ñu sanctionné puisque dañuy ñoom dañuy boole seen bopp ci biir sanction bi la plupart des arbitres loolu la ñu wax mais comme li ma la expliqué sànq rek dialogue du ñàkk loo gis ci àddina xeex sax ci dialogue lay mujjee <laughs> guerre ci dialogue lay ci dialogue yëpp ci il faut ñu toog waxtaan. xam américains yi bu ñu demee ba ne ñuy waxtaan ak taliban yi. <laughs> ci Afghanistan. xam ne lépp ci waxtaan lay mujjee tam. au début dañ noonu duñ ko def. duñuy waxtaan ak ay terroristes duñuy waxtaan ak ay rebelles. mais àddina day dox ndax ku ci nekk da nga yaakaar ni rek am nga raison. te loolu mënul nekk ñaari raison mënul am benn raison rek mu mun a nekk loolu moo tax sunu invité moo Mbaye ñu ngi lay nuyu bu baax. di am mbégte tamit ci ñëw bi nga ñëw fii pour waxtaan ak euh, ñi nga xam ni ñooy def émission bi muy El Hadji ak man ak auditeurs yi ñuy déglu tamit léegi ñu bàyyi la nga nuyu auditeurs yi ba pare ñu déglu dugg ci waxtaan bi. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam. Euh, maa ngi leen di nuyu El Hadji Malick. Papa Dieng. yéen ñi nga xamante ni si ni yéen laa fi fekk. ngeen dalal ma. Mhm. di nuyu borom borom kër gi. Mhm. Euh, di leen jaajëfal ci liggéey bi nga xamante ni si ni moom ngeen di def sénégalais yëpp rafetlu ko euh, di doore d'abord wax rek ni e, sénégalais yi nga xamante ni si nii ñoo ngi ñuy déglu. Mm-hmm. dafa am loo xamante ni si nii dafa songo àdduna bi. Mm-hmm. E, bi mu songee àdduna nag. Mm-hmm. da li may wax Sénégal moom mënu cee bañ a ñàkk. parce que nous sommes dans un monde fi mu nekk nii planétaire. Mhm. mu di lan mu di feebar bi nga xamante ni si ni mooy coronavirus bi. Mhm. ci samay propos damay d'abord jaajëfal képp koo xamante ni si nii médecin nga. Mhm. docteur nga. wala sage-femme wala technicien de surface. parce que ñooñu. yaakaar naa ni xeex bi nga xamante ni si ni ñu ngi koy xeex. ci Sénégal euh, nekk na loo xamante ni si lu rëy la. kenn amul seen njëkk. kenn amul seen fay parce que bu ñu toogee fii di wax suñu santé moo ñu ko waral bu ñu amul santé duñu mën a dem fenn ci kaw loolu maa ngi wax d'abord di jaajëfal aussi le président de la république Macky Sall ak son gouvernement mais également chef religieux yi nga xamante ne si nii ñoo nekk au Sénégal ak coutumiers nga xamante ne si ni ils n'ont ménagé pour que lii nga xamante ne si nii moo fi nekk ñu ñu jëlee ko fi donc ci kaw loolu maa ngi maa ngi maa ngi sargal ñëpp di gërëm ñëpp di wax ni rek gox goxaati li laay rasul yi ñi fa dëkk ne ñu dimbale ngir yàlla ñu defar ko parce que comme ni ñu koy waxee rek mbay ci say wóom bala ngay dem feneen di jéggiwaat feneen di dem di wuti ji beneen réew di fa faju am na loo xamante ne bu ñu ko defan au Sénégal tey jii xëy na am na noo xamante ne nii ni nañuy ñuy accueillir feebar bi <clears throat> avec légèreté lañ koy jàppee parce que dinañ am loo xamante ne si ne ay ay ay ay plateau euh, médical yoo xamante ne si ni c'est de de nouvelle génération mm-hmm. high level mm-hmm. ñu man fi di faju ñun ñëpp nga xamante ne si kenn du am fenn foo xamante ne fa nga koy jéggi mm-hmm. donc daal loolu lay commencé. wéy mais di ñaan tamit ñi nga xam ni dañuy dugg ci réew mi. voilà surtout ñu présenté wu. présenté wu surtout loolu aussi surtout loolu. loolu parce que bul ñu xa bu ñu fàtte nag Sénégal du dong ci plan aérien bi ci la nit ñi di duggee ci réew mi am na ñoo xamante ni ci suuf la ñuy jaar ñii ngi ci géej gi mhm. fépp foo xamante ne si ni xëy na peut-être nit mën na faa jaar pour dugg si Sénégal rek dañu koy ñaan et puis il faut que d'abord nit ñi di am habitude di dénoncer mhm. il faut que ñuy dénoncer. parce que benn euh, euh, pataas bu bu nëpp. Mhm. moo mën a yàq téeméeri pataas. Mhm. su ma jógee fële ne xaw ma lu ma man di dal xaw ma lu ma indaale nañ ko waxtaanee. Mhm. nañ dem yegg demal damaa jóge France wala damaa jóge États-Unis damaa jóge nangam fa laa jóge damaa ñëw pour ñu xoolal ma sama yaram. doo lor kenn. loolu rek laa amoon loo xamante ne si ni wax dëgg yàlla moom laay tijjee. mais mais mais mais Modou euh, dafa tombé contexte. Mhm. alors yéen depuis suma juumul le vingt huit. Mhm. ba léegi yéen ngi fànt sur ak waa CNG. waaw ñu ñu euh, def ngeen toog benn jour rek. Mhm. ne du ngeen arbitré. waaw ñu jël ay décision. ne yéen dañ leen di suspendre si Tor Ndour. rajee ko. Mhm. Malick Ngom suspendre ko. ak su ma mhm. juumul euh, Babacar Diouf Babacar ak Dramé. ak Dramé waaw ñoom la suspendre maanaam ñi nga xam ne. Mhm. ñoom ñooy la crème de l' arbitrage. est-ce que bi mu loolu amee ba léegi jot nga nekk en contact ak CNG. pour amorcer une discussion mbal ku nekk da nga toog sa côté braqué wu. waaw man bala may commencer foofu noonu. il faut ngeen may ma d' abord ma leeral tuuti. loo xamante ne xëy na peut-être sénégalais yi dañ ko dañ ko réeré ci lu bëri. parce que gis nga bi problème bi commencé am ba léegi nii. Mhm. fu nekk waaye nga fay jóg di wax. Mhm. te li muy wax wóor na ni ko tegu ko fenn. Mhm. xëy na peut-être da ngaa jóg ñëw pour yàq. bala nga far fenn xëy na wala nga far fenn. waaw <laughs> mais réellement. du kuy defar wala koo xamante ni si ni làmb moo la ñor. moo tax ngay wax. mais ku làmb ñor dëgg dëgg dëgg. am na noo xamante ne noonu ngay taxawee am na noo xamante ni si nii noonu ngay jàppee li nga xamante ni si nii moom la. Euh, arbitre di wax. Mhm. li arbitre di wax jël ko nga teg ko balance. lan la arbitre di wax. arbitre li ñu wax sa très simple. Mhm. ñun dañoo remarqué ni depuis pratiquement deux ou trois ans. Mhm. dañuy réclamer lu ñuy wax assurance. ci biirum làmb bi. parce que nit booy liggéey ci dara. wax dëgg yàlla war nañ la mën a assurer. képp ku ñu fa rey ci làmb ji actuellement nii da ngay perte sa njaboot mooy perte. ñun ñu toog. ñetti at ñu koy def dañuy bàyyi ba euh, làmb ji jeex ñu dem lëlu booru mbuur mhm. ñetti fan ci suñu propre frais CNG bu ñuy dimbali un dixième la ñuy dimbalee un dixième ci somme boo xamante ne si ni un million cinq cent la ñuy cotiser ñun xam nañ koy cotiser bi mhm. ci liñ ñuy fay ci lan ñuy dagg par ay mille mille ba fin année bi jeex muy douze mille francs pour chaque euh, euh, arbitre boole kook ay cotisation yoo xam cotisation yoo xam ni yaa koy génn ci sa poos boo ko boolee loolu la ñuy jël ak ndimbal yi nga xamante ne si ni moom la ñuy dimbale par ci et par là par la même occasion dañ ciy gërëm directeur bu Dakar dem dikk mhm. mais moom chaque année bu ñuy dem moo ñu jox bus jox ñu carburant jox ñu chauffeur mais kooku bu ku mel ni moom mu xam na ni kon ñun am loo xamante ne si la ñu wut ñu bu ñu demee dañuy wut ku nekk sa yére yi nga xamante ni si nii moom solutuloo ko wala sa yére doom wala ay dàll yoo xam te njëg si ñëpp dangay indi ñu def ko ci ay mbuus def ko ci ay saak jël ko yóbbaale ko pépinière bi nekk foofu noonu bu ñu demee ci lañuy dem jox ko euh, sër bi ni ko xamuñu chrétien xamuñu jullit xamuñu païen xamuñu kenn lii dañ koy def ngir dimbali li nga xamante ni si ni mooy population. maanaam action sociale. action sociale voilà mais Modou. ma ñëw. beneen bi ci des ñu ñëw yëg si ñu ni leen ñun xam nga lu ñu bëgg. Mhm. li nga xamante ni si ni moom la ñuy fay ñu dimbali ngir yàlla ñu yokkal ñu ko parce que kat boo jëlee ci li nga xamante ni si ni moom lañ soog a commencé bi vingt cinq combat euh, euh, combat yoo xamante ni si ni def nañ ko journée. Mhm. cinquante deux mille cinq cent lañ doon fayeeku. Mhm. sur vingt cinq combats yi. les pour cinq arbitres moom la ñuy fayeeku. par combat. non par journée par journée. journée bi. cinq yi lool la ñuy loolu la ñuy loolu la ñuy partagé wu. Mhm. bu fekkee par exemple da nga dem sur les dix combats. sur les dix combats. Mhm. bu fekkee da nga dem da nga dem euh, naka la tudd. Euh, arène nationale. Mhm. foofu c'est pire booy dem da ngay jël taxi. booy ñibbisi da ngay jël taxi. ak fan ngay jëlee taxi. taxi sax du fa am. du fa am. léegi yow ñaata ngay fay booy dem. boo jógee par exemple Nord Foire gi ma dëkk nga ni da ngay dem arène nationale deux mille cinq cent ko fay booy dem mhm. booy ñëw fan nga koy jëlee da ngay obligé avec say pen ak lépp gàddu sa saak dox ba technopole bi romb nit ñi romb nit ñi bu boobaa ci la ñuy indi problème est-ce que ñu xale xalaat ne arbitre baa ngi dañ ko xalaat di wax sànni xeer sànni mbuusu ndox yenn saa yi ñu menacé la mais loolu dañ ak wax ju ñaaw loolu dañ koo wax a wax wax ba sonn te li ñuy wax nii nag ñu naan kañ lañ ko commencé kañ lañ ko commencé depuis plus de trois ans 31 juillet daaw suñu rapport bu ko directeur administratif wane le président du CNG rapport boobu noonu bind nañ ko ci. mais yéen mais mais mais mais mais mais mais Malick dégg nga Modou booy dem grève dafa am préavis dafa am day normes à respecter. voilà très bien xam nga da ngeen naan préavis. Mhm. nañ tekki préavis ci olof mooy la. Mhm. du yëgal. mu yëgal mu yëgal très bien. ku lay yëgal depuis octobre. Mhm. octobre la wax lañ ko yëgal CNG. monsieur Sitor Ndour le euh, notre. Euh, euh, euh président ñëw yëg si au niveau du CNG wax ko ñun dañ daan wax naan ko Sitor moo bañ a wax suñu doléance. Mhm. à un moment bien bi daan wax ba dee bu ñu waxee yëg si ñu ni ko yow yaa waxul suñu doléance il faut nga wax suñu doléance def leen dànk def leen dànk def leen dànk Kaolack moo njëkk na nar a dem grève ñu ni déedéet ñun ba ñu waxee premier octobre ba ñu commencé wee. ouverture saison bi la ñu commencé di wax. bi ko Sitor Ndour waxee au niveau de la table xam nga lu ñu ko wax. bu ngeen ñu bu ngeen bu ngeen fajul suñu doléance yi dañuy dem grève Alioune Sarr ni ko prenez vos responsabilités Babacar Diouf daal ni ko jeune ne vous le pas mais prenez vos responsabilités ñun nous sommes des responsables ñun ñi nekk ci ñi ngànk CCA il n'y a que des responsables ñëpp ñoom nag xëy na peut-être dañoo yaakaar ni euh, sanctionner nit ki walla nga aj nit ki mooy tax lii faju mais c'est le cas contraire. parce que da ngeen braqué wu léegi. déggoo li ma la wax xoolal ñi nga xamante ne si nii ñoom ñooy dem dans les plateau de télévision et de rajo xool leen bu baax a baax da ma mës a dégg man ma wax nous nous sommes disciplinés la commission centrale des arbitres sont disciplinés daawoo dégg kenn wax ko ku wax dañ lay sanctionner on avait un représentant c'était monsieur Sitor Ndour moom moo am moom lañ joxoon suñu wax moom mooy wax keneen amul droit wax

nee na li nit ñi di wax ni defuñu préavis de grève préavis de grève mooy. yëglu yëglu ci mbind. mais boo seetloo yëglu ci mbind ak yëglu ci wax soriantowul te it ñoom seen principale revendication defe naa ni mooy assurance bi. ndax les risques qu'ils encourent après les combats bu ñu fa jógee di ñibbi. mais léegi Modou man li ma lay laaj mooy. bi nga xamee ni waxtaan ngeen ak ñoom. Mhm. ñoom ban réponse lañ leen jox. très bien euh, bala may fàtte am na ay points yoo xamante ne si ne xëy na peut-être yegguma ci woon. Mhm. gis nga les 70 pour cent dont on de la mise. Mhm. ci mise bi nga xamante ne si ni moom lañ jël ñu ni arbitre bu ñu defee benn mise. Mhm. par exemple bu dee 500000. maanaam li organisateurs yi di fay. voilà d'organisation yi. voilà 70 pour cent yi. yow arbitre ñoom ñoo ko moom. par exemple dee 500000 la mise bi. dix pour cent yi mooy mooy mooy ñaar du cinquante mille la. Mhm. cinquante mille yooyu ci la soixante dix pour cent yi arbitre ñoom la arbitre ci moom. Mhm. soixante dix pour cent mais soixante dix pour cent yooyu c' est pas respecté par les régions ni les localités mais respecté wuñu ko man en tant que euh, structure ma am foo xamante ni si ni damay diriger ay nit ma ñëw ni Malick Ndiaye yow dama laa jox une euh, defal ma lii defuloo ko mais lu nit ki di wax. danaan mais kii moom la àndal wala bu ma koy def sa parce que kii dama ko yëgoo moom xam nga nit nag bu ñu la nomee ci benn post de responsabilité yow yaay jël sa ay responsabilité te loolu du benn yoon du ñaari yoon même Fatick moom moo ko fi respecté te pour ñu respecter ko il a fallu que gouverneur ñëw intervenir pour ñu mën ko respecter mais am na loo xam teen si ne dafa ñaaw Malick Thiandoum mu ngi may dégg xaw ma dégguma Max Mbergane mi ngi may dégg xaw ma déglu déggu ma Tambacounda laaj leen am na boo xamante ni si ni xaw ma Kaolack am na boo xamante ni si ni il a fallu l'intervention de Malick Thiandoum et de Max Mbergane pour que arbitre yi dem siffler ji parce que boobu noonu les soixante-dix pour cent yi lañ leen lànk ni duñ leen ko jox. Hmm. mais léegi nii naka la ñuy rémunérer ci combat yu mag yi xam nga léegi nga dégg ñu ne combat euh, x ak y combat bu mag. fay nañ soixante millions bala cent millions xam nga loolu day am les frais d'organisation. yéen fi arbitre tam yéen des fois mun na ngeen dem ba am. sept cent cinquante mille yu ngeen di seet du yéen trois yi. non du yéen trois yi. Mhm. cinq yéen cinq yi. yéen cinq arbitre yi. waaw. Mhm. même foofu. Ah. mais Modou. Mbacké Bal. Euh, bu fekkee euh, combat bi dafa laaj loo xam ne da ngeen ci am sept cent vingt mille par exemple pour cinq arbitres yi. Mhm. loolu lu ko waral mooy dañu nekkoon ci situation boo xam ne du situation de crise boobu làmb ji mi ngi dox. mooy lan c'est-à-dire mooy grand combat yi daan am. yëkk Balla Gaye. Mhm. Balla Gaye Modou Lô mooy combat yoo xam ne gëj na am. xalaatu leen ni kon situation bi dafa dem ba nga xam ni dafa changé yéen ngeen jël position par rapport à la première situation que vous étiez favorable. déedéet. voilà expliquez loolu. du loolu de. ok je vais vous montrer chose les sept cent cinquante mille dont on parle. Mhm. benn yoon lay nekk ci at mi. benn yoon. benn yoon. lay nekk ci at mi. maanaam su grand combat amee. bu grand combat amee benn yoon lay nekk ci at mi te les 750 000 yooyu noonu cinq arbitres ñoo koy séddoo du benn arbitre bu ne. 750 000 non bien sûr. 750 000 yooyu pour l' ensemble du corps arbitral. ñoom ñoo koy séddoo ça les cinq arbitres ou bien. les cinq arbitres. Mhm. léegi yow ci seen cinq arbitres yooyu noonu ku nekk boo ñëwee yëg si am na loo xamante ne si ni moom ngay compal yeneen arbitres yi nga xamante ne si ni arbitre jiwuñu woon. est yaa ngi may xool bu baax. li may wax genre solidarité boobu. genre solidarité c'est pour la commission. pour la commission. ñoom dañu am loo xamante ne la ñuy yàqoo ak moom bi ñu la jox sa deux cent mille francs rek nga jël ko def ci sa poste daal di dem. di nga ñëw yëg si man ba man arbitré wu ma semaine boobu yëpp xëy na peut-être ñëw ma mu daal di jël benn cinq mille francs jox la jël benn dix mille jox la. sa ndijaay ji nekk Mbambilor wala ji nekk Pire wala ji nekk Podor wala bi nekk Kaay woo na la gis naa la ngay seen waa kër ngi lay xool seen koñ ñu ngi lay xool ak leneen ak leneen noonu la affaire bi dañ boo paree ba paree boo moytu sax cinquante mille francs yow ci sa bopp yow doo ko yor loolu la. Ah, mais mais moo dama leen bëgg a laaj arbitre lan xam nga bu njëkk arbitrage yi Pape je parle sous ay ay ay ñoo xam ne bëgg làmb rek la woon mais léegi yéen ñu ci bëri boobu c'est des professeurs de PS wala des anciens de PS. yow mi ci nga bokk ay si toog bëri ngeen léegi. est-ce que c'est au niveau de l'INSEP da ngeen jël def option naka ngeen naka nekk arbitre làmb fi mu toll nii. voilà. loolu dama ciy sawar a tontu quoi. Uh-huh. parce que ñun au niveau de l'INSEPS. Uh-huh. Euh, da ngay ñëw première année deuxième année troisième année. Uh-huh. année de spécialisation. première année deuxième année tronc commun la ñëpp dañ koy defandoo dangay def lutte combat def football def basket def handball def euh, bas euh, natation def volleyball léegi nag maintenant il y a ce qu'on appelle les matières. écrite mm -hmm. comme la physiologie mhm. la euh, psychologie l'anatomie mm -hmm. la statistique et cetera ak l'anglais mhm. ce sont les matières que ñu moom lañ doon def foofu noonu mhm. léegi boo ñëwee ba deux ba troisième année da ngay am spécialisation dafa am benn sport booy jël sport collectif ak sport de combat ak sport individuel sport individuel bi am na ñenn ñoo xam te ne si dañuy jëm jël natation am na ñoo xam te ne si dañu dem jël euh, athlétisme am na ñoo xam te ne si dañu jël combat judo am ñoo xam te ne si ni dañuy jël euh, gymnastique donc ñun ci suñu biir am na ñoo xam te ne si ni comme man dama jël option combat ak euh, ak football. Mhm. moo nekkoon sama option. Mhm. noonu la demee léegi nag arbitrage bi loolu dafay da nekk loo xamante ne si nii njàng la parce que il n'est pas dit que ni tu es optionnaire de tal rek. Mhm. que xam nga par exemple la réglementation au niveau de la. surtout par exemple bu fekkee c'est au niveau de l'arbitrage. ak ak làmb. ak làmb. parce que nag ñun dafa am noo xamante ni si nii noonu lañ dëxëñee làmb ji au Sénégal boo ko xoolee dañuy am loo xamante ni si ni c'est typiquement sénégalais am loo xamante ni si ni xëy na peut-être tu vas l'apprendre les gestes les loolu c'est à l'INSEP si nga koy jàngee et mais li nga xamante ni si ni mooy ay décisions à prendre et tout comment prendre par exemple la fiche et cetera c'est au niveau du terrain c'est au niveau de l'arbitrage foofu lañ koy jàngee mais loolu yàgg nañ ci yàgg nañ ci ak combat yoo xamante ne si ni ñëw yëg si yéen xool leen combat yi nga xamante ne si ni moo fi mujjee moo fi mujjee jàll. mbër daan day daan mbër kenn ñëw yëg si fële fekk arbitre mu taxaw mu puus ko ñii di poñe arbitre ñii di def lu nekk ak di saaga arbitre. te dans ce cas là CNG bi ban réaction li ci am. loolu mais bi gën a graaw xam nga ban la. Mhm. drapeau chef de l' état. Mhm. am na benn mbër boo xamante ne Fatick la dëkk. Mhm. Cheikh Niang. dafa jàpp benn arbitre saaga ko def ko lu ko neex commission centrale commission de discipline ñu ngi may dégg kenn convoqué wul booy bi ba pare gracier ko au nom de quoi même booy gracier benn benn mbër wala dara mais xanaa di nga ko woo. mais mais ñoom Sitor comment ils vivent cette cette situation radiation avec suspension naka lañ ko est-ce que ñu ngi ko vivre ak philosophie. mais xam nga ñun li may wax une chose làmb ji Sitor ñu bëree bëri bëri xëy na peut-être xamuñu ko. parce que dañoo yaakaar ni làmb ji moo koy dundal et c' est le qua contraire. c'est un professeur et c'est quelqu'un qui a eu un bac plus six un bac plus six mhm. Sitor option c'est euh, ak football gis nga li ñuy wax naan ay ay les optionnaires la ñun ñi nekk optionnaire sax moo ñu gën a taxaw au niveau de la discipline mais parce que dafa yàgg yàgg ba pratiquer pratiquer ñi nga xamante ni si ni ñoo nekk di au niveau la formation laaj leen tous les arbitres qui sont là à Dakar pourquoi ñu naan règlement bi nekk dakaar nekkul nekkul feneen et cetera lu tax lan moo ko waral te pourtant am na ñoo xamante ni si ni yàgguñu ci arbitrage mais ay ay kàngam lañ ci ñoom ci moom lañu ñu taataane ak ñeneen ak ñeneen mais ñooñu nag boo fekkee yow ki nga xamante ni si nii day former pour une jeunesse di jàpp ci ñoo xamante ni si xëy na peut-être amuñu liggéey wala nangam ñu ni lii lañ bëgg a def et cetera nga jàpp ci former leen indil leen foo xamante ni si nii xëy na peut-être ñëpp ñu ngi leen di gis dans les prises de décision nit ñi dañu nekk ñoo xamante ni si ni c'est des hommes qui sont intègres ñi sëq làmb ji au niveau de la CCA au niveau de Dakar dans les autres régions ay bopp la ay borom bopp lañ léegi nag ñooñu nga ñëw jël leen amoo lenn loo leen di def lu leen ay radiation ak ay sanctions ça ne passera pas mm-hmm. te radiation boobu ma lay wax. waaw da koy dund ak philosophie. Mm-hmm. très sincèrement ce qui est dommage et à regretter c'est quoi doomu jàmbur la ak keneen ak keneen Babacar doomu jàmbur la Malick doomu jàmbur la te dañu am njaboot am ay doom mais imaginez nga yeewu suba teel sa doom dégg ñu ne papa a été radié ñuy wax turam bi fii yaayam fitam du dal papaam ainsi de suite ainsi sa famille ñëpp di la woo mais xam nga loolu dafa ñaaw ku mu ci nekkoon sa jarbaat wala sa doom jamais au grand jamais doo ko def. mais Modou. Mbacké Bal. Modou loolu ngay wax moo dal sax même waa CNG yi ndax xam nga toujours ñu attaqué leen te ils ont des familles comme vous. mais fi mu nekk situation bi fi mu toll. yéen lan ngeen xalaat pour trouver des solutions. waaw xam nga man les solutions. CNG dañ ko jox occasion. pour mu jël ay solutions. gis nga bi ñuy doog a commencé. on a démarré la réunion le mercredi. chaque mercredi. dañuy jël suñuy ré dañuy jël suñuy suñu suñuy précaution dem ut foo xamante ne ni fa la ñuy defee suñuy réunion les prises de décision kii war a arbitrer ji samedi foofu lañ koy xamee et tout nga def ko muy va mercredi bi nga ñëw jeudi ñu continuer suñu réunion vendredi à dix heures lañ jël suñu décision Sitor Ndour woo le directeur administratif monsieur Ndiame Diop mm-hmm. pour wax ko mm-hmm. la décision ko nous avons prise mm-hmm. mais bu ma fekkee man réellement dama bëgg loo xamante ne seeni kii la wax nañ ko Alioune Sarr ay gars dañ dem grève ah sama njaboot lañ de je prends mon téléphone j'appelle ak kii de droit si toor mu ni naam man ko j'ai besoin de vous mhm. yow ak yow ak kii ak kii ñëw leen mhm. chez moi wala ñëw leen fekk ma au bureau mhm. on va en discuter moins de trente minutes ils vont trouver une solution mais defu ko xam nga lan la def affaire dictateur fii man maa fi nekk maay doxal lu ma neex noonu la demee bu fekkoon dafa am cër boo xamante ne si ni moom la ñu cërale jox ñu ko très sincèrement jour boobu noonu le vendredi on aurait trouvé une solution ou le samedi le matin mais kenn defu ko boobu ñuy wax ba léegi nii seen ne nous a pas pour nous dire quoi que ce soit xam nga ñu appelé pour lan la pour teg ay daan ci kaw arbitre yi nga xamante ne si nii ñoo génnoon pour wax te man loolu damay wax rek lenn naqariwu leen xam nga la ma leen naqari mm-hmm. le fait que nit ñi génn wax Mm-hmm. loolu dong moo naqari CNG. Mm-hmm. parce que parce que parce que l' arbitrage c' est c' est une grande muette comme l' armée. c' est ça kon war nañu noonu wax. loolu la man li ma la man li ma la bëgg a laaj ba tey ci ci ci wàllu yaa ngi wax ne euh, yaa ngi wax ne affaire bi agsi na fii toll na fii toll na fii Pape Ndiaye di wax ay piste de solution yoo xam ne war na am. Mm-hmm. est ce que entre temps am na ñoo xam ne ñu ngi leen di oo pour dox ko pour essayer de trouver une solution ci moment de pause bi nga xam ne lañ nekk pour reprendre affaire yi. waaw mais xam nga loolu du ñàkk. du ñàkk. parce que nit ñi ñuy ñëw di ñu wax naa ñu il fallait ngeen bind benn benn benn recours pour ñu gracier leen pour nangam ki i nangam mais boo xoolee dans la forme et le fond mais tegewul fenn jaaduwul li tax ma koy wax man je je je m'explique Sitor Ndour décret moo ko fal. décret bi fal Alioune moo fal Sitor Ndour ci biir décret bi nan la nga mën a ñëwee dàq koo xamante ni si ni décret moo ko fal boo ko bëggee dàq xam nga nooy def. da ngay dem ci boppam wax Matar Ba mu dindi ko ci décret bi ba pare bu ko dindee ci décret bi ba pare nga soog koo mën a dàq. donc y' a vice de forme. mais y' a vice de forme y' a vice donc dès lors que am na vice de forme rek ajatul ñuy ñuy continuer waat naan lii wala nangam wala sàngam waaw ah, mais léegi Modou yéen lan lan ngeen fas yéene def. ci situation bi fu mu toll nii. waaw mais xam nga ñun nag dañoo amoon suñu suñu suñuy plan yoo xamante ni si nii moom lañ moom lañ tëraloon. Mhm. yi ñu tëraloon xëy na. corona bi moo ko moo ko moo ko moo ko moo ko moo ko moo ko capoté mais incha allah rabbi yi bu ñu demee ba situation bi dal yaakaar naa dinañ gisaat euh, yeneen démarche yoo xamante ne si ni ñun dinañ ko entreprendre. <laughs> mais ah, man li ma la bëgg a laaj mooy dafa gis sanction yi. Sitor la. Mhm. Malick Ngom. Mhm. Babacar Diop suma jumul. Mhm. ak ak kiw Thiès bi. Dramé ak Dramé. waaw ñooñu c'est les ils sont les ñoom les responsables CCA bi mbala c'est les. personnes les plus en vie pourquoi ñooñu rek. <laughs> xam nga li ma waxoon léegi loolu laay répété waat. ñooñu ñoo wax. loolu rek la. ñooñu ñoo wax. gis nga man li ma wax mooy. ñoo dem ci presse wax. ñu non xam nga dañuy wax naan ñoo dem ci presse bi ñoo dem nangam ak sangam. Mhm. Malick lan la def. mais bi ñuy wax Sitor moo wax. Mhm. waaw moom lañ jël fii Sud FM. waaw moo wax. kanakan wax ma kan moo kanakan Babacar ñu ne Dramé lañ ko ci boole lii rek la. parce que Dramé moo ŋànk Thiès lii rek la mais du leneen. mais est le soutien des autres régions. mais bien entendu. mais gis dix régions yëpp pratiquement ñu ngi ci biir. mais gis nañ premier jour bi dañ jëlee ay arbitre fa la ñu arbitre sauver combat bi xam nga lan mooy problème. Mhm. su fekkee man damaa bëgg jàmm. Mhm. mu leer ne man man jàmm moo ma tax a jóg. Mhm. te ci laay dox xam nga lan laay def. la ma jële ji ay. Euh, euh, arbitre arbitre fim la wala ma koy jële ji ci yeneen dëkk yi di ko ñëw di ko indi jëlal som boobu noonu di leen loger di leen nourrir su ma ko ci tegoon woo arbitre wax ak ñoom arbitre arbitrel la te kan lañ dem jëli ji ak ñan lañ jëli ji mais man dama gis Pape ci sanction yi ñi nga xam ne ñoom ñoo sifflé grand combat yi Sitor Malick Ngom di fàttali moom moo sifflé Eumeu Sène ak Modou Lo mhm. keroog moom moo sauvé Eumeu Sène mhm. Dramé tamit léeg-léeg mu ñu ak juuf mhm. ak moom mii est-ce que loolu tamit du gën a indi ay ay jafe bi nga xamee ne c'est la ñu yeneen arbitre nañ ma baal c'est la crème a été sanctionné. non c'est parce que mooy li la euh, Modou wax rek. mooy ñi wax. mais ñun c'est la crème de l'arbitrage. waaw mooy li ma la wax mooy ñi wax parce que xam nga ñi waxul. Mhm. Euh, peut-être ñoom euh, teguñu leen daan. mais ñi nga xam ne ñoo mëne mouvement bi. te mhm. comme li Modou wax. Sitor mooy seen représentant au niveau. di président CCA. waaw ci bureau CNG bi mooy président bi. moom à plusieurs reprises saa yu Sitor ñëwee bu ñu ko nee fu problème bi toll Sitor ni leen xaar leen dañ ko naan yow xanaa yow li ñu la sant boo demee doo ko wax parce que depuis trois ans ngi nii ñu wax la sunu problème te boo ñëwee doo ñu jox réponse xam naa Sitor problème boobu mu am par rapport aux arbitres am ko au niveau du CNG parce que tamit euh, comme que ay arbitres ñu am na ay réaction yoo xam ni pour la CNG war nañ ko def foofu la réeróo bi commencé mais man li ma xalaat mooy euh, Modou mhm. comme que arbitre yi nga xam ni ñoo mën a mouvement bi ñoo feeñ ñoom la ñu suspendre ba yeneen arbitre yi ànd ci ni ñoom bokk nañ ci suspension bi bu ñu suspendre seen représentant ñoom ñi nga xam ni ñoom la ñuy représenté dañ ciy bokk mhm. n'est-ce pas mhm. kon léegi yéen est-ce que xalaat ngeen ne am ngeen mbooloo moo xam ni takku na par rapport aux arbitres yi nga xam ni ñooy arbitrer dans toutes les régions ba mu a mën a combat bi jusqu'au bout waaw gis nga dama bëgg a xamal ne gis nga le combat mhm. ce n'est pas tout simplement Dakar ce n'est pas Thiès ni Mbour ni feneen ak feneen c'est l'ensemble du national mais dans toute toujours ñoo xamante ni si ñi ay défaillant lañ mhm. ah mais c'est dama leen di comprendre mhm. am na benn benn pas boo xamante ni si nii mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi góol tàppe Assane Gueye la tudd mhm. lu ma daan wax dama ma ne ko naam mu ni ma euh, la wax lu dul kaay ñu daw nga gis ko ne mi ngi daw kaay ñu julli mu nga gis ko ñu ngi ko julli bu ko gëm ba kera nga koy gis kooku ba mu koy wax ça pratique léegi mu dem pratiquement plus de quinze ans wala vingt ans te wax boo xamante ni si nee na mag la mhm. ça suit day ñëw ñun ñi nga xamante ni si ni ñoo nekk ci arbitrage xam réellement lan mooy àq ak yeleefu arbitre il sont avec nous ñi nga xamante ne seen ànd ñu ak ak ñun du tax benn yoon boo xamante ni dañ leen ŋàññ wala ñu mere leen. Mm-hmm. te man ba léegi nii dama naan képp koo xamante ne si xam nga li tax ñuy dem mouvement nga bokk ci boo ko déggee nga xam ne ñun li ñuy kaas c'est loyal li tax ma koy wax mooy fuñ la nee kaay ñu jëlal la assurance assurance ñu ne déet ñu ni la dañuy yokk sa ndàmpaay bi nga xamante ne si nii moom lañ daan jox. xeex que 70 pour cent yi nga xamante ni si nii moom la ñuy jox soit appliqué sur l' ensemble du territoire national mais kooku koo ko wax mais ay la yëwén léegi nag bu fekkee man damaa ñëw yëg si ñu nax ma ni ma oui dañ la war a yóbbu à Dakar parce que da war a def benn benn kii dañ la war a yóbbu drapeau chef de l' état pour nga def ci nangam ak ki sàngam mais y' a problème waxal nit ki li nga xamante ni si nii moom nga koy doyee sa sa aqulaay taalaa tax bul ko nax ci benn yoon mais xam nga am na loo xam te ni si nii dafa ñaaw ñu koy génne au niveau de la télé ñuy wax naan les arbitres sénégalais lii lañ mën ak erreur yi nga xam te ne si ñoom def ak faute yi nga xam te ne moom lay def yu grave. mais ah, man moo di ma bëgg laaj mooy ci wàllu arbitrage ba tey. dootu mm-hmm. nangoo dugg sax waaye il faut ma laaj ko. Mm-hmm. gis nañ ne arbitre bi dafay am souvent ay trois appuis ay quatre appuis est-ce que yéen vous êtes associé ci décision comme yéen yéen vous prenez toujours les décisions su combat amee. waaw gis nga bu combat amee. Mm-hmm. ñetti arbitre ngay gis ci biir langue gi waaw ñetti arbitre yooyu di jël ji biir ci langue bi mm-hmm. bis bu amee benn décision boo xamante ne si ni moom la ñuy jël mm-hmm. ñoom ñett ñëpp ñoo koy ñoo koy jël concerté wu waaw majorité bi mooy am moo koy mooy majorité bi voilà yow dangay nekk ci biir mm-hmm. man damay nekk ci biir kii damay nekk ci biir ni ñuy placé woo c'est on se place de telle sorte que ñun dañuy gis chute bu muy am par force ñu gis fenn on réduit l'angle maintenant nag dina am boo xamante ni si nii en biais lay nekk. yéen ñett ngeen nekk nii. sud bi muy demee na le kii gis épaule kii gis pooj bi et cetera mu am benn jiixa jaaxa. ñu xool deuxième arbitre bi moo lay atte parce que la règle des deux tiers la ñuy appliqué. bis boo gisee la règle des deux tiers mun nga jël sa décision ni diw nangam la moo xool ak nangam te li ñuy gis mooy da nga jëkk ba caag rek nga gis arbitre bi daal di woo kii arbitre central bi du joxe décision mukk te demul gis. ces deux juges ni ko loo gis. mais ba léegi bu fekkee noir la yor. Mm-hmm. noir bi la gis danaan mm-hmm. noir moo daan. Mm-hmm. kii bu gisee blanc mu ni blanc laa daan moom dina am lu mu gis. mu ni nangam laa gis. loolu aussi bu ñu demee au niveau de la réunion CCA bu ñu demee ba toog dañ koy tegaat ci kaw ji. ku nekk les erreurs commises boo ko defee erreur dañ la ko fa lañ la koy waxee dañuy toog ba ay vingt deux heures du ñu génn on commence à partir de seize heures dix sept heures vingt deux ñu nekk di donc mais nit kooku noonu di ko def amoo lenn loo xamante ni si ne moom nga ko war a fayee. Mhm. Malick Ngom boo ko élevé wul grade national. sauvé ab lutteur. Mhm. amoo lenn looy wax ak moom lu dul dama lay dama lay dama lay sanctionné wala dama lay ak cinq ans. un arbitre international nga xamante ni si ne boo toogee un an demoo rek championnat yi gars yi raw nañ la bu bëri. nga ñëw di da nga koy sanctionné pendant cinq ans loolu mooy wane ne tikkal sa ay jaajak sa ay affaire demee noonu nga dem toog yi mm-hmm. mais dama gis arbitrage bëri ay risque parce dama gis léeg su grand combat amee pap mi ñoo nekkandoo estade ngeen di laal ay mbër waaw ah, cest à mbër yi lu ñu diwoo diwoo diwoo diwoo yéen da ngeen leen di laal ah, bien sûr lu tax du ngeen sol ay gants wala ngeen koy defee xam nga nag euh, dafa am loo xamante ne si ne suñu culture la bokk mm-hmm. booy xool nit ki mm-hmm. tu n'as ngay sol ay gants Mm-hmm. la face palmaire. Mm-hmm. loxo bi moo gën a mën a xam. Mm-hmm. ndax nit ki diw na. niin na wala niinul. ndax nit ki. am na loo xamante ni si ne takk na ko wala takk ko. même takk yi da ngeen koy seet. mais takk yi da bu fekkee dafa takk loo xamante ne xottu butéel la bu ci mbër mi jàppee mu gaañ ko il faut mu dindi ko. mais dañuy takk ay béjjën. mais yan béjjën béjjën yi nga xamante ne si ne dañ koy ëw bopp bi bu génnee dañ la naan dindil. pétaw fu mu nekk ci yow bu fekkee ëwuñu ko complètement dañ la naan dindil. mbër yi dañuy ñëwee si noonu sama gàllaaj mais da nga koy dindi par force amul dem te ñëw wala du ngeen siffler. mais non da koy dindi. Ah. loolu amul sax dem te ñëw. da koy dindi sinon doo bëri da nga koy dindi mbaa doo bëri. doo bëri mais mais laal bi ngeen laal mbëri yéen est-ce que da ngeen itam da ngeen waajal seen bopp. man parce xam nga sekk nag. loolu nag mooy mooy mooy Sénégal loolu mooy Sénégal gis nga boo gisee ñun ñu xam ne réellement risques yi nga xamante ni si moom lay encourir. moo tax ñun ci suñu bopp ñu ni il faut d'abord ñu assurer ñu. Mhm. mais ku nekk. am na ñoo xamante ne si bëgguma ko wax sax mais am na benn journaliste boo xamante ne si dafa ñëw yegg si reporter la de reporter du reporter wala ñii micro micro central. waaw dem dugg ci suñu versaire yi ñëw dëgg taxaw génn saagam teg ay butéelam commencé di diw fii nii ñu ñun ñu jaaxle ñooy sëñ bi mu ni yéen toog leen fii da ngeen di xaru mais ñii ngànk làmb ji xam nañ ne ku ci aman jarbaat wala nga am ci doom wala nga am ci sët ci biir. doo ko doo ko teg fit yi ñu teg nii. Mhm. bu boobaa. Mhm. di nga am neneen noo xamante ne si ne noonu ngay waxee ak ñoom. mais est-ce que Modou. Uh-huh. fitna yooyu ñu leen doon teg yàgg nañ leen ko teg pourquoi ngeen toog ba léegi di ko di ko soog wax. Ah, waaw xam nga li may wax mooy. nous nous sommes mhm. gis nga commission bi nga xamante ne si ni moo gën a discipliné. au niveau de de de de. du CNG. c'est la CCA. xëy na peut-être tey la ñuy soog a xam ni ñoom derrière. ay Sitor Ndour Babacar et am nañ ay bopp ñoo xamante ni si nii bu ñu xalaatee benn ñii xalaat nañ fukk ba ñëw teg ko discipline boobu ñu doon doxee moo ñu doon empêcher ñun ñu jiital nit ba pare di ko galabal mënuñu ko on ne peut dañu ko jiital ba pare jox ko confiance boo xamante ni si nii bu amul fenn bu yemul fenn lu mu wax ñun ñoo ko wax décision bu mu jël ñun ñoo jël décision bi ni ko danga koy wax mus ngeen a gis ñu ne nangam sangam mu jël décision à l'unanime non non non day à lui seul non non day woote ñëpp ba ñëpp d'accord ni lii la ñuy jël suñu groupe WhatsApp bi li ci nekk loolu la ñuy def malgré que ni dañoo interdire les rassemblements mais on se communique au niveau de de de par via WhatsApp toog waxtaan di xalaat ci loo xamante ni si nii day jëme làmb kanam et tout voilà. Ah, mais est-ce que léegi parce que sañ ne ñi ko seq ñëpp ku ci nekk ñu baal ma ay fortes têtes muy Sitor muy Alioune Sarr Pape <laughs> yow yow yow laa koy laaj mooy tax ma ne dafa atteindre le point de donc ku ci nekk li nga téye yaa ngi ci téye ñii ànd ci Sitor jiit ñii jiit Sitor ñii jiital ñoo bokk gis-gis Serge itam ñu ngi dans leur situation donc ku ci nekk rek yaa ngi fi nga ŋànk te yow xam ne ngay wax ne solution war naa mën am ci bu ñu wax. mais li sax ma wax loolu mooy. je reviens toujours encore à à Modou Mbaye Modou. Mhm. yéen am ngeen règlement bi règlement CNG mais li CNG sukkandiku pour daan leen est-ce que loolu dafa nekk ci réglement bi te yéen bàyyiwu leen ci xel walla nekk na ci réglement bi ngeen bàyyi ci xel. waaw bon man xam nga damay wax naan gis nga le réglement mm-hmm. walla la mm-hmm. nit ñi ñoo ko def. dëgg la dañ koy adopté. Mm-hmm. ak ni nga xamante ni si nii noonu lañ ko bëgg a adopté moo wax la benn anecdote walla loo xamante ni si ni dafa xew ci biir. bu fekkee dafa am conflit entre deux parties mu am par exemple benn euh, combat boo xamante ne dafa am litige kenn ñi mu cee wax ci arbitre tànk tant litige boobu noonu levé wuñu ko bu fekkee dañoo am erreur kenn dóor kenn wala nangam ñu woo ko kenn amu ci droit wax tant que commission de discipline bi waxu ci bi problème bi amee Babacar Diouf président de la commission Euh, de discipline. Mhm. a appelé boobu il était en voyage à l'étranger mhm. dafa voyagé woon xam nga la mu wax ci biir réunion bi. Mhm. Sitor il est disqualifié. disqualifié. avant la décision Prenez... du CNG. non lui c'est sa décision. déjà moom mu ne Sitor il est disqualifié. ma yaakaar ni ci loi. nit ki bala nga koy daan. benn daan di nga ko déglu ba pare. mais yéen est-ce que kon kon jot ngeen entendre yéen. mais non xaaral rek ma expliquer la. déjà moom en tant que président de commission il a déjà donné sa verdict joxe na li ma war a wax ba pare disqualifié fu ñu la ko waxee jël ko ci match de football wala dara c'est carton rouge outdoor ci biti léegi kon bu ñëwaatee ñëw yëgsi di entendre nit ñi c'est tout simplement pour falafla la mais décision moom joxe na ko bien avant donc moom il a fait une faute grave une faute lourde il devait être sanctionné mais est-ce que yéen jour man ni jour boobu noonu. Mhm. dafa waroon a tekk ndombal tànkam. daf ko waroon tekki. est-ce que dans le règlement du CNG am na possibilité def recours par rapport aux sanctions. mais non xam nga lu ñu def. Mhm. man wax naa la ne bu amee vice de forme. Mhm. lan ngay defee ay recours. mais amatu ko. mais xam nga xam yaa ngi wax léegi ne loi indite ko bi mais tam règlement c'est des interprétations. voilà c'est des interprétations. ci interprétation yi mën nañ mën nga jàpp mu vice ñoom jàppuñu vice de forme est-ce que yéen envisage wala yéen envisage wu leen def recours non ñun duñ duñ man ñun duñ mës a ñaan recours def recours non non on le fera pas ndax da nga nekk ci dëgg non dañu nekk ci dëgg gis nga na ko sénégalais yi teg au niveau de la balance nañ jël li CNG di wax ñu teg ko à la balance jël ñun li ñuy wax ñu teg ko à la balance ñu xool fan la balance bi di féete nañ ko xool rek peser leen les sénégalais sont là en train de juger la kii ñu wax ñu déglu leen bu ñu toogee wax ñu wax dinañ xam ne réellement fan la dëgg bi féete te man li may wax je ne cache man damay wax très clairement gis nga Alioune bu fekkee dafa jël cette décision la moom dong moom kot c'est parce que dafa am fu mu ko teg fi mu ko teg nag c'est très simple et nous le comprenons aisément monsieur le ministre Matar Ba moom moo taxaw ñëw wax. réunion di ko wax Alioune saar dañ ko mu a fan parce que suñu grand la suñu nangam suñu sàngam man nag du ma dugg ci yenn yi di ko wax wala nangam li mu wax laaj interpellé laay interpellé mhm. comme sama comme sama grand la mhm. mais sa grand kay lu mu wax loolu ngay adopté loolu ngay def mais mais wax na fi dara di yokk nañ seen ubbi nañ seen dugal ci ay mbër te pourtant il l'avait refusé la woon rek xam nga xam nga li may wax mooy mhm. du ma def politique su ma arrangé ma d' accord. Mhm. su ma arrangé wul du ci d' accord. Mhm. man loolu duma ko def. <laughs> même dama yaakaar ni. waaw moom monsieur le ministre moo taxaw wax ni euh, ñi nga xamante ni si ni ñoo nekk au niveau des DTN ils ont duré ils ont dure mhm. DTN nag. Maguette ci la bokk Maguette ci la bokk Abdou Badji mel ni ci la bokk. Abdou Badji ci la bokk. Mayacine Mar la bokk ñoom ñëpp dañoo dem. mais à plus forte raison nag koo xamante ni si ne à la tête d'une structure da nga fa def vingt six à vingt sept ans loolu il faut nit ñi wax ko. mais mais Modou xam nga loolu tamit mun nañu ci taxaw tuuti parce que moom teew fa ba moom moom dañ ko faa teg. xaaral ma ñëw te les ministres qui renouvellent les xaaral mhm. gis nga xam nga lu tax ñuy wax loolu. Mhm. dans le nouveau système de management. Mhm. dañu gëm ni dañu jàng ni. gis nga à partir de cinq ans. nit ki day atteindre le paroxysme. amatoo lenn loo xamante ni si ni moom ngay prouver Alioune Sarr nañ ma wax lan la mën a prouver actuellement au niveau de la lutte lu mu fi def loo xamante ni defu ko fi woon. Mhm. il n'y a plus de motivation ñoom ci seen biir xam nañ ko bande de copains la rek xam nañ ko bu baax a baax a baax. Ah. am na yenn yoo xamante ne si nii nag. Mhm. jarul ñu fay yàgg quoi. Ah. man très sincèrement dama ni. Mhm. dafa am loo xamante ni dafa ñaaw mënuma dàqalee DTN parce que ils sont à la retraite. teg fi nit koo xamante ne si ne par exemple nit ci biir nit ñi il il est à la retraite ba pare jël keneen teg fi mu durer fi pendant vingt cinq à vingt six ans le sport a besoin de cent neuf le Sénégal jeunesse sam ci boppam moom la soxla. mais au au ñun kon lan lañ doon jàngi ji ñi fi nekk ñëpp ils ont appris quelque chose loo xamante ne si nii mën nañu diriger le CNG. Mm-hmm. man li ma la bëgg a laaj moom mooy. xam naa sax léegi ñu <laughs> xam naa léegi président daal di ñëw wax wax ak réew mi li ma bëgg a laaj euh, euh, euh, Modou moom moo jëm ci li nga xam moom moo jëm ci réglement yi. Mhm. gis nañu souvent est-ce que yéen CNG buy modifier règlement yi par rapport à l'arbitrage vous êtes di concerter. mais ba kaay par exemple sortie délibérée yi. waaw ah, ma expliquer une mhm. la seule commission qui travaille au niveau de du du CNG. Mhm. c'est la gis nga golo loo ko bañ bañ bañ bañ. ne ko mën ngaa yéeg. Sitor Ndour mi ngi def liggéeyam convenablement c'est un homme de principe c'est un de valeur et de conviction man c'est un ami bu fekkoon dafa def le contraire maay taxaw fii nii waxaat wax ko fii man du ma raayal kenn ginnaawam ni yàlla nekk na fi yonent bi nekk na fi te defuloo ko def duma ko def. mais ci wàllu gis nga gis nga règlement boobu ngay wax. Mm-hmm. ñun ñooy jël adopté léegi. sorties yi ñuy def chaque année loo xamante ni si nii ay erreurs répétitives des fautes yoo xamante ni day ñëw bu ñu demee ba mbóojeen bu ñu toogee vendredi samedi dimanche ci la ñuy toog def ndëpp daan mais sortie délibérée lañ doon wax. Mm-hmm. mujj na ñu naan sortie tout court mais kan moo ko waral. Mm-hmm. mais ñun la. Mm-hmm. boo yëkkati waa woon benn mbër ba koy waaj a samp boppam dañ naan arbitrage dañ au niveau du règlement dañ naan arrêté mais bu ñu la naan arrêté waxuñu la woon kan nga doon jox. Euh, verdict bi. mais ñun ñoo dem ni ko bu fekkee dafa am danger. ki nga xamante ni si ni moo nekkan en position de kii moom la ñuy jox kii bi comme l' appelle encore verdict bi moom mooy gagné. mais loolu ñun ñoo ko dindi ak leneen ak leneen ak leneen. waaw mais kon dans ce cas là Modou est-ce que seen waxtaan ak CNG parfois dina am compréhension est-ce que di ngeen di faral di déggoo ndax yéen amu leen droit wax parfois da ngeen di joxe verdict ñu casser verdict bi donc seen diggante ak CNG. est-ce que dafa ñagas ci diggante trois ans yi ngay wax wala dafa tax non man li may wax mooy gis nga verdict yi ñuy joxe ñun ñun dañuy on apprécie au show mhm. ci biir action bi ci lañ apprécier mhm. bokk ñoom ñi nga xamante ni si nii dañuy dem toog seen kër mhm. seetaan télé pendant soixante douze heures ñu gis ni télévision tel télévision tel télévision ñu daal di ñëw yëg si daal di ñëw indi recours daal ni lii mooy suñu recours ñun ay bët lañu yore di apprécier appréciation nag. moo évaluation ñoo am. dafa loolu sax dafa war a am kii. ñun en toute objectivité. lañ koy def. faraluñu mbër. xamuñu mbër. gisuñu mbër ñun xam lañ lañ gis. suite am na règlement bi lii la wax lii la ñuy def nangam la ñuy def wala nangam. la def loolu moo tax ñu créé VAR. très bien créé VAR. léegi nag ndax à chaud on peut se tromper. voilà léegi nag man ci loolu damay am loo xamante ni dama koy naqarlu trop su ma demee ba am 60 yaakaar naa ne am na yenn yoo xam te ne war naa ko jomba wax war naa ko jomba def parce que quelqu'un ku mel nii Kati jóg nit la koo xamante dañ ko respecté lool naw lool fonk ko ma yaakaar ni koo xamante ni si nii boo nee kuy sa maam nga ne la Joor dañ naan fit njàmbaarte dëggu ak am ay principe mais nit du ñu dugal ci wax joo xamante ni si dañ koy wax naa la kan moo wax lii nga naan moo damaa yaakaaroon ni wala damaa foogoon ni wala damaa defe woon ni bu nee ni ñun arbitre yi ñun ñooy retenir. recours yi recours foofu laa bëgg ñëw ak yow. mais loolu c'est grave c'est une affirmation. qui est gratuite mais recours yi sax yéen du jaar seen loxo. mais man dama xamul lan moo ko wokk wala lan moo ko xuri. Mhm. ak lan moo ko neex ba tax muy indi wax yu mel noonu mais dafa am loo xamante ne dafa ñaaw dafa ñaaw nit àdduna am na yoo xamante ne si ni jëru ko nga nekk mag. moo xamante ni si nii muskallaf nga wax xale yu ndaw yoo xamante ne mooy de 40 ñëw teggi la ni la lii nga wax nii foo ko teg amu ko amul fenn foo xamante ne la ko teg ñiy nekk ci làmb ji xam nañ ñi ñoom ci seen bopp bu ñu amee recours boo xamante ne moom la ñuy def ji dañuy dem au niveau du CNG ñu def ji recours bi foofu noonu lañ koy defee ñoom ci boppam CNG moo la naan dama la wuti gis cassette boo xamante ni si nii wala CD boo xamante ne mooy wane ni yaa daan wala fii et cetera et mhm. yow ci sa bopp yaa koy jëm indi ji ko. Mhm. ñu am une commission boo xamante ni si nii mooy réunir. Mhm. mais loolu bu demee ba am lan la nga mën laay mën a ñëwee yegsi di wax loo xamante ni si nii dama yëngal aras am loo xamante ni dafa ñaw c'est vilain. donc yéen recours yi comme li nga wax du jaar seen loxo puisque CNG nga koy déposé. mais arbitre recours yoonam néew ci xaalis bi gisul tinul. loolu moo am. kon fi mu nekk defe naa ni dañu war a déglu. xam naa dañ ko yemale émission bi fii nii. parce que mu nag mais mm-hmm. actualité oblige. oui voilà parce que dañuy dañuy bàyyi rek nga rapidement nga tàggatoo. Mm-hmm. waaw maa ngi gërëm euh, ñëpp ñi nga xamante ne si ni ñoo ngi leen doon déglu ñoo ngi doon déglu. Mm-hmm. di euh, wax sama collègue arbitre yi nga xamante ne si ni ñoo nekk ci région yi. li leen wax ni leen nañ jàpp fi ñu jàpp foofu la. que ni na peut lii nga xamante ne si ni mooy corona bi moo empêché suñuy activité mhm. mais incha allahu rabihi bu ñu génnee ci yii mhm. dinañ gis yeneen démarche ak yeneen méthode yoo xamante ne si ni dinañ ko def mhm. bu fekkee dafa jar ñu toog ak le président de la république yàlla mi ñu tiim xam nañ on le fera pour dem wax ko ni ko la jeunesse de son pays a besoin de lui mais pourquoi pas le ministre des non xam nga nag ministre des sports. il est au courant de la chose. Mm-hmm. mais il vous mais il nous a appelé mais jusqu'à présent aucune action pour régler le problème n'est n'est n'est faite. donc ñun li nga xamante ne si ni moom la ñu wax mooy ki nga xamante ne si nii moo nu yilif ñun ñëpp. Mm-hmm. teg fi ki nga xamante ne si nii moo teg Alioune Sarr fii nii. Mm-hmm. ñun kooko ci boppam. bu fekkee dafa jar ñu dem wax ak moom. bind ko taxaw au niveau du palais dinañ ko def. <laughs> jërëjëf kon bokk auditeurs yi gis nga waxtaan bi tey fii lañ koy yemale ndax discours bi nga xam ne président de la république moo ko war a def à